الحمد لله المجيد ذي القدر من قسنا فضلا إليه ذي القدر واجبا لجميع داري حتى غدا ثم على الذي خير jerejeuf serigne bi ki day laaj ne ñaari bayt yi serigne touba wax lu muy teg alhamdulillahi almujib zil qadar man khassana fadlan bi laylati alqadar muazziman li sha'niha fi ad dahri hatta ghadat khayran min alf shahr waaw lol de alhamdulillahi sant yàlla la yàlla mi nga xane moy mujib moy nangu ñaan ku ko ñaan nang ko wara ñaane mu nangul moy borom dogal it lepp lu am moma mang koy sant mune mom mi nga xamne mo nu jaglel ci mbaxam du sun ngoro du sun njàmbar way mbaxam la fadlan minhu taala la moo ñu jaglel guddigu ñuy tudde laylatul qadar yalla magal lol mbirum guddigu ci jamono jep ba gudigi, mujuna gën junniy wer te xam ne sax ci laylatul qadri xayru minal shahr kon day sant yàlla di bëkki xéewal gi yàlla wàcce ci jullit ñi mooy may leen genn guddi goo xam ne boo ko fanaanee jaamu yàlla am nga tuyaabay jaamu yàlla gu ëpp junniy weer moo gën junni weer la wax moo gën junni weer nam ko gënee moom kenn xamul mu toll loolu yiw rëy la waxam ne yàlla màggal na ko sëriñ bi wax nag ne maa ngi sant yàlla ci loolu mu borom bi def kon ci xasida gu la ko la ci la ci leral kon am sol laylatul xadar di ci soññee niñ ci war a lo waye di kagn guddi gi ak la ci nek ci ay ngeneel lol nak limi tek moy jam jaam ñi war nañ ko fonk war nañ ko jox yitte war nañ gor lu ndax li ci nek ci aw yu amul fu mu yem genn guddi go xane ne junni na te dañuy wax ne juróom-ñett fukki at ak ñett ak nangam la juróom-ñett fukki at ak ñett ak weer genn guddi goo xam ne ko wala boog moo ko gën kon guddi gu fonk la